waa ca jërëjëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen siyaar di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax a baax di leen wax ne la mbégte la ak contentement Modou Anta sans frontière mu teewaat fi tey ginnaaw le premier janvier deux mille vingt quatre ci at mu bees bi ñuy ñaanal jullit yëpp jàmm. di ko ñaanal ñi nga xamante bi nii mooy umma islamique bi yëpp di ko ñaanal aussi tamit suñ mbokku chrétiens yi di leen ko ñaanal bu baax a baax a baax a baax di leen wax na leen ah macha allah at mu bees maa ngi noonu ñuy ñaan dugg si bisimilah rahmaani rahim génn si ak alhamdulilah rabil alamin mbokk yi tey la woon komba Modou ak Boy Niang numéro 2 Modou am ndam si kaw booy Niang numéro 2. ñuy encouragé booy Niang numéro deux champion la di félicité Modou xarañ loo le roi des arènes waaye yi. tey 17h dafa jot ba 16h30 tuuti ma jooy ma gis stade bi yaraax lool sama xool xaw naqari ma yaakaar ne làmb ji du fees foofu nag jikkooy dere ci Gaston Production bi ñëw na ci man maa ngi commencé bëgg a sot wax dëgg yàlla waaye nag bi demee ba ci kanam stade bi fees dell dama kontaan dama xool makan mu xool ma su ñaari bëri mu mel ni dafa am lu ñu waxante mu yëngal def ma nii ma gën a sawaraat mu mel ni dafa ma roof puissance mais félicitations à Gaston mbeng bala maa wax Makan Mbengue père Gaston yi ngi lay ñaanal gudd fan ak wér gi yaram bu baax a baax ak mboolem njaboot bi yëpp papa kontaan nañ ci yow bu baax a baax parce que jàng ba mu jotee jàngal nga Makan yar ba mu jotee yar nga ko wut ba mu jotee jàngal nga ko ni ñuy wute am ba mu jotee Makan am na. respect bi lépp macha allah tey boo gisee làmb ji bi mu ñëwee détermination bi mu àndal motivation bi mu àndal ci làmb ji parce que coow li bari woon na avant làmb ji seen làmb ji amul promotion. action ayca ba tey comme niñ koy waxee ñuy félicité waat ki nga xamante bi ni mooy Makan Beng waaye tamit kenn du suñu baay ba père Gaston Beng dañ koy ñaanal guddi fan ak wér-gu-yaram Tabaski Fa Mbocc macha allah kontaan nañ parce que doom ji nga yor macha allah ku ne bëgg na koo jur parce que jàng ba mu jotee. jàngal nga ko yar ba mu jotee yar nga ko bu baax a baax a baax waaye tamit mbokk yi wut ba mu jotee yow jàngoo ko ni ñuy jàngaloo ko ni ñuy nappe parce que nag nit ki may ko jën jàngal ko nii nappee moo ko gën macha allah da nga koo jàngal ni ñuy nappee ba makan beng tey jii bi mu ñëwee ci stade bi dafa tari dafa topp ci yoon wi rek dox correctement macha allah ñu koy félicité bu baax a baax tey nag làmb ji comme ni ma ko waxee dama toog ba 17 heures sama yaram xawa a daw ma ma xaw a am gàcc sëgg waaye dama toog ba benn ma moment ma romb ki nga xam mooy Makan Mbeng mu xool ma ànd ak détermination man tamit ma ànd ak moom deretu Gaston Production bi yëngal ma nag foofu ci laa dox dem sama yoon. ñu toog ba ay dix huit heures demi ma gis stade bi am changement ma kontaan ci lool supporters yi Boy Niang numéro 2 yi fees nañ stade bi dell càppaacul yi. booy ñan macha allah mobilisé na tey waaye kenn du Modou xarañ loo dafa mobilisé par rapport ak contre Ama Baldé dama ko laaj question ma ne ko contre Ama andi woo mobilisation lan la ñuy mën a xaar ci combat bi mu ne ma combat bi waa génération xarañ waa xarañ famille waa xarañ moo nu boole ñooy fees stade bi te macha allah ni mu ko waxee noonu la ko defee stade bi fees na dellu mbokk yi ñuy encouragé mbër yi daanu tey yëpp di félicité mbër yi nga xam ne ñoo daan ñëpp macha allah ñu dikk ci combat bi combat bi. bari na ñu doon wax naan mën naa nul benn ci man mii nee naa la buñ dégloon te mën nañoo niil bu fekkee ne dañoo ñamante bàyyante congu amul mën nañoo doxe fa mi-temps dellu si waat waaye dañoo ñamante enchaînement am mooduloo ak Boy Niang numéro 2 ñu xeex seddoo ay coup xeex séddoo coup Boy Niang nag bu ma juumul moodu jël na coup mais Boy Niang moo jël gën a jël coup Boy Niang ne coppe tànk ba Modou nooju ko mu rëpp trois appuis bi mu rëppee trois appuis nag Boy Niang instant yi xaw na nagam mënatul jóg Modou dugal na ko ci biiram comme Boy Niang numéro 2 fi mu dugaloon Balla Gaye au lieu nag booy Niang fi taxu ci parce que boobu mënatul fi taxu ci Modou Lo ci la ko njatt dawal loxo ba koy yëkkati ba mu yaakaar ne daf koy yëkkati mu delloo ko delloo boobu mu ko delloo booy Niang mënul arrière mënta toog rek la mën a def wala mu jaaxaan Modou dal ci kawam kon mbokk yi Modou noonu la daanee booy Niang waaye dañuy féliciter Modou Lo rek wax dëgg yàlla dugg na ci làmb 4 février 2006 di ko ñàkkante ba xëccoo roi des arènes moom ak Bombardier perte ko bu yaa fuusan wala mu ñàkk confiance wala mu ñàkk gëm boppam day bàyyi mais mu continuer topp ci ba 28 juillet 2019 mu bëri ak Eumeu Sène daan Eumeu Sène combat am ak Ama Baldé taxaw 2018 combat am ak Ama Baldé taxaw 2019. combat bi mënuñu ko bëre ba 5 novembre 2023 ñu bëre ko mu confirmer roi des arènes ba mu ca jógee ñëwaat 1er janvier 2024 mu confirmer waat ne man maay buur bi ànd ak sama gouvernement yëpp confirmer waat roi des arènes parce que mbokk yi Bombardier da koo jël 25 décembre 2002 bi mu ñëwee première sortie bu ma juumul wala benn victoire la ci am après Yékini daan ko muy bundaa Ndafa xam ma maam Jambaan après Yékini daan ko bu ma juumul ba mu jógee foofu Yékini jël ko ci Bombardier deux mille mille an deux mille quatre wala deux mille yor ko nag Yékini am ci diiran bu yàgg am ci ay revanche jël ko. Balla Gaye jël ko ci Yékini 22 avril 2012 bëri ceeg Tapha Tine 2 juin 2013 daan Tapha Tine bëreeg Eumeu Sène bëreeg Bombardier 8 juin 2014 Bombardier daan ko nekkaat roi de arènes pour la deuxième fois ci histoire lamb jee nag ba mu ko jëlee yàggu ci amu ci victoire wala astafurla am na ci victoire parce que Bombardier bi mu ko jëlee 8 juin 2014 dafa bëre ak Modou Lo daan Modou am ci benn victoire léegi nag ci 2015 boobu noonu Bombardier bi mu jógee foofu 28 juillet 2018 mu bëreeg Eumeu Sène Eumeu Sène daan ko kon Bombardier benn victoire la ci am Balla Gaye benn victoire la ci am Eumeu Sène nag jël ko 28 juillet 2018 bëri ci ak Modou Lo perte ko Modou Lo ba mu ko jëlee deux mille dix neuf vingt huit juillet daan na ci Ama Baldé cinq novembre deux mille vingt trois daan na ci tey Boy ñan premier janvier deux mille vingt quatre Modou Lo am na ci roi bi ñaari victoire kon félicitation Boy Niang numéro deux nag aw ma dara lu ma koy wax ndeysaan tey sama yaram dafa daw xam nga la moo tax dafa daanu sëngee mu jooy ba ci yàgg mu jóg affaire bi mel ni du ko defi gént mu ree papa ji bi mu duggee ci géew bi général de alxaaji dégool sama papa jooju di ko ñaanal gudd fan ak wér yaram ci dal bi ak yar yeeg teggi ni mu léngu ko mu ne ko papa lan la damaa daanu foofu bi mu ko waxee dafa mel ni maanaam boo ma doon jam ay puso du ko yëg ndax cofeelu doom ak baay tey bu ko papa yi Modou Lo waxoon yàlla na ko yàlla xaare àjjana ma nga ca barsax ak mboolem kum fa fekk mais ku jur doom deewoo waaye ku jur doom yërëm bi mu ne ko papa damaa daanu mu ne ko sii da daanu foofu boo ma jaman paaka duma ko yëg sama yaram bi dee na gars yi ñëw di déconné Kandji production ci disponible ci disponible bi ak ci yar bi ak ci respect bi andi ko dalal ko ne nañu dem ñu lëngu ko yóbbu bi fii fiy mujj 1er janvier 2023 dañoo lëngan Balla Gaye 2 mu ñibbi muñ lool moom Balla Gaye tey nag Boy Niang bi mu dellu si waatee 1 janvier dañ koo lëng yóbbu mu ñibbi kon di courage et félicitations lii ndam la ci yow. Modou Lo ba mu njëkkee xëccoo waa des arènes da koo perte booy Niang yow laay waxal Modou Lo bi mu xëccoo roi des arènes moog Bombardier daf ko perte dabu jiwaat ko ba deux mille 2019 mu am ko. Balla Gaye ba mu xëccoo waa des arènes da koo am Tapha Tine ba mu xëccoo roi des arènes 2 juin 2013 da koo perte mi ngi koy dabu waat kon mbokk yi làmb nii la félicitation léegi nag làmb ji jeex na leen na fi mën a am pour ñu tëj Modou Lo Reug bu leen ne ma da ngaa yebaate de Modou moo wax bëggatul bëreeg ñim bëree loon kon nag comme bëggut a bëreel ak ñim bëree loon mënumaa tudd ñim bëree loon ngeen jéggal ma nag moo ko wax ma jël ko interview mu ma ñi ma bëree loon tàngal ceeb bi doy na kon Modou Lo ak Reug Reug combat la Modou ak tafaatin Tine combat la mosuñoo bëre Modou ak kan bu ma juumul ñooñoo fi des Modou Lo Tapha Tine combat jànq mosuñoo bëre Tapha Tine daan booy ñaa Modou daan Boy Niang loolooy làmb ji rëg-rëg bu dee Modou mën na koo may sens combat la Bombardier la mujjee daan te Bombardier moo daan Modou boole bala Gaye ak Modou daan kon mooduloo ak rëg-rëg combat la ak Tapha Tine waaye am na xale bu nekk fii ci géejawaay muy Sa Thiès adversaire potentiel lu Modou xarañ ndax moo daan rëg-rëg wax day tungoom seede Sa Thiès moo daan rëg-rëg ba pare di bëreeg Eumeu seen kon Sa Thiès ak rëg-rëg ak tafaatin mën nañoo bëri ak Modou Lo mbokki lii la woon ci taxaw seetlu bi di nuyu gaa yëpp di leen siyaar waaye nag tey sama caméraman Aliou borom raam daan Couture walaay ndeysaan sama xarit bi tey moo fi jaarati sañsel ma kaw ba suuf Aliou kontaan naa torop parce que danga ma ko jox fi ma ko soxlaa du tisi bu ma jënd. du wëñ bu ma jënd du dara lu ma jënd te ñaw bii tey boo ko doon xool xaalis bu bëree bëree la nga yëkkati ko jox ma ko boole ma ko neexal bu duun borom Ramdan Couture pousse moo damu ci loxo bi xale boobu yàlla na la yàlla defal jàmm kontaan naa bu baax a baax waaye di nuyu moo njaay directeur Serigne Mado maa ngi koy siyaare ah Babacar borom marché Petersen waaye Galso 94 borom mafia bu dëgër bi jóge na Touba ma nga ca Sine di wut ay bagages yu bees tàq pour bégal client yi nee naa la moom tuuti wax. joob lu bëri Galso 94 mbokkam yaayam Petit production waaye sama nijaay Moustapha Ndiaye mi ngi ca Touba Mora Couture maa ngi lay siyaare ñoom Mbaye Diop Galaye TDR dofu Ama bu Samel Babacar borom marché Petersen Abdou Tall bu xarañ loo félicitation sa mbër mi tey am na victoire bu rëy a rëy kon Abdou Tall félicitation mbokk yi boo dee lim da juum di leen sant di leen gërëm di leen jox seen wàccuwaay ba beneen yoon ci Gaston production jërëjëf.